RFM rajo Futur Média juróom-ñeenti waxtu di 21h jot sënkam ci studio Ndayew Mbaye xibaaru guddi gi asalaamaaleykum la ca gën a fës ñaari njombe ci dëkk bi benn ca Ziguinchor beneen ca Mbàkke Ziguinchor la fa xew gone gu yaatam tollu ci juróom-ñaar jàpp juróom-ñett moo dox ba dugg ci foos ay jàng la jóge woon démb ba fi mu nekk ni sapeur pompier ñoo ngi def seen kéemtalaay kàttan waaye gisuñu ko njombe li am ca Mbàkke ci dëkk bi di Ndioman la diggam ak Mbàkke ci fukki kilomètre ak juróom ak lu taw bu fa jaar moom moo xoddi xadd ya fa ñu bari ci askano tey jii ci biti la ñuy fanaan nee nañu jàkka jeet kenn mënu faa jullee ndax amul ab xadd boole ci giw wa ñu dencoon di xaar nawet bi gën a sori jiw lépp yàqu na syndicat gi ëmb liggéeykat ci wàllu justice ña ca nekk doon gerew seen weeru juin gi seenu payor des ko dañ koo dagg euh, ñoom nag ñu koy ñaawlu ci pàttali altine bii di euh, ñëw ñoom ñooñu kon war nañoo euh, daje ak ki nga xamante ne ji mooy ñooy seen ay njaatige ngir xool nu ñuy def ba lijjanti du ni mel jëwriñ gi ñu denk wala commerce wala boog directeur commerce intérieur xam le ne ci lu yàggatul dara fii ak juróom-benn weer dees na samp ci réew mi ñaari usine yuy defar tamaate moom Alioune Diouf tey jii la ko xamle jamono ji muy teewe euh, maanaam euh, ndoxteel yëngu tey kuréel gii di euh, Rocades taxañum xabaar ba nga mbokk yi des na ko tàqar ñi toftal ci xabaar yi jóge yoof aju ci téeméer ak fanweer ak benneelu wooteb Seydina Limaamul Mahdi lay gannaaw bi lañuy ñuy ànd ak yéen ci sport week-end ak Cheikh Tidiane Diagne Alioune Badara Ndiaye Ansa moo nekk ci machine bi. Mamadou ci kaddu gi mbokk yi nuyu naa leen di wéy di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Media xibaaru guddi gi ñu doore ko ak la xew si Ziguinchor genn gone gu toll ci juróom ñaar jàpp juróom ñetti at moom moo dugg ci foos ca quartier bii di Kajoor. ci jàng la jóge woon moom xale boobe euh, dugg nag ci foos yi ci jamono joj daf doon taw taw bu mitti ba fi mu nekk nii gone ga kenn xamatul kenn xamagul kon fan la ko jant bii di tiim la ñu mën a xam rek daal euh, moo di sapeur pompier maa ngay def kéemtalaay kattanam ngir gis ko waaye ba fi mu nekk nii gisaguñu ko yeneen i xabaar des na ci ànd ak Abdoulaye sambu ci ay euh, leeral feneen fu njombe am ngoonuk tey di cee njoomaan dëkk la boobu diggëm ak Mbàkke toll na ci fukki kilomètre ak juróom ak lu teg taw bu am doole bu fay wàcc jamono ji tax na kër ya fa nekk lu ca bari seenub xadd xoddeeku na euh, ñu bari ca njaboot ga foofe bu taw ba sewetee ci biti la ñuy fanaan ndax seen néeg ya yi daanu na ya ca des moom toiture di xadd amatu ca yamu ca ne jàkka ja mëne su caa jullee ne amatul toiture Euh, ñooñu nga xam ne ñooy yeewoo ci dëkk ba la ñu amoon ciw jiw dencoon ko seen angaar ya euh, daal taw ba jaar na fa ndox ma yàq jiw bi ba fi mu nekk nii mënatuñu ko jëfandikoo des na ci ànd ak euh, kii di Abdoulaye Fam ci yeneen i xabaar rajo Futur Média xibaaru guddi gi juróom-ñeenti feg juróomi minute pour man RFM mooy bi gën seen soxla. SYTGIST di syndicat gi mu ñuy liggéey ci wàllu yoon euh, altine ak jàmm danañu daje ak ministre de la justice loolee gannaaw euh, ba daal euh, ordre des avocats sole tànk solew dàllam kon fas yéene dox tànki jàmm ci ñaxtu yooyee greffier yi nekk audience boobu nag ñu xam leen ñoom waa SYTGIST ne daal. seen ñaxtoog yëngoog yëngal yi ñu nekkee ca la cay tukkee ca la aju ñu fàttali ne waa sudjust weeru soin gi ña ca nekk ca nekk cib géréw ko ca nekk sak payor fell nañ cës lëf ndax géréw boobee nga xamante ne ji kon euh, nekkee woon nañu ko Aliou Diouf di directeur commerce intérieur xam le ne fii ak juróom-benn weer Sénégal des na am yeneen ñaari usines yu yees yu yëngu ci ndefarum tamaate moom directeur commerce intérieur cadre yooyu mi ngi ko yëkkati tey ji ci ngoon ca muy teewee ndox ko des mm, aju rek euh, ci euh, maanaam euh, wallu koom Alioune Diouf yamu ca ne xamle ne sàkku na kon ci commerçant yi ñu gën a booloo ñu xamle ne gouvernement bi tey la gën a dogu ci marché Sandaga ak namu fote ñu fotar ñu ko Alioune Diouf ñu déglu ko ak Jom politique commercial Sénégal dafa di politique boo xam ne fi mu ne li ñu ciy jublu mooy dañoo bëgg Sénégal nekk acteur bu mag ci la am na commerçant ambulant am na commercant tablier te ñooñu bu ñu leen organisé wul mën nañoo yàq liggéeyu commerçant yi maanaam Sandaga bu nit ñëwee taxaw sa kanamu boutique ba fatt la ba kenn du mën a accéder sa boutique xam nga kooku mu ngi yàq sa liggéey kon nag ñooñu nga xam ne ñoom it dañoo bëgg a liggéey organisme commercial day politique boo xam ne dañ ko taxawal pour mën a créer ay marché yu bees pour mën a fexe ba marché yi mën a am ay jumtukaay yoo xam ni dana permettre nga denc fa nga jaay fa ci anam yu aw yoon. loolu moo tax commerçant yi ñu ñaan ñu ànd ak état bi pour ñu développer politique yooyu bu ñu sañoon domaine boo gis rek dana am ñaari industrie wala ñetti industrie ci wàllu tamaate nag Sénégal dafa def loo xam ni tamaate bi ñuy defar Sénégal daanaka bariwul ñu koy defar ci monde bi tamaate boo xam ne amul xorom amul lenn luy niru xeetu lu koy jox couleur lu koy xonqal wala yu mel noonu loolu Sénégal rek la am ñu bëgg tam mu am ñetti usines yoo xam ñëpp dañ ciy jàpp ba xam ne képp ku bay sa tamaate di nga mën a am kenn ñaar ba ñett nit ñoo xam ne mën nga leen koo jaay loolu mooy jëmale kanam réew maanaam li ngay bay da ngay fexe ba loolu yow nga transformé ko pour mën koo jariñoo moo gën rek nga bay ko rek daal di ko sànni noonu wala nga yóbbu ko noonu bitim réew ñoom ñu transformé ko indiwaat la di ko jaay loolu tax ñu encouragé politique de transformation et de valorisation maanaam li ñuy bay te di ko lekk ñu fexe ba ñun ñu di ko transformé des ci wàllu mbay mi ba léegi wutali diwaanu Matam taw bu am doole bi ñuy séntu nawetub ren bi tax na eh, kuréel kuréel gi nga xam ne moom mooy euh, direction régionale développement rural bu maatam xam ne dañ ci waxtu warees naa mën a rafet euh, ci ne nawet bu neex dana am ca bi lee diiwaan euh, muy ci wàllu dugub geek yu ni mel ñu jàpp ne it gannaaw ba nga xamante ne ji béykat yi foofee am nañ ndimbal ci jiwu wi gannaaw it ba ñu leen jotalee ci phosphatu Matam yooyee Ali Bandel ñam ak jumtuwaay yi te sa Sénégal jagleel réewum Sénégal ren tax na ba béykatu diwaanu Matam daal di teel noppi liggéey bi ñeel defaraat seen tool jéeri yi jamono yi ci diwaanu Matam mboolem ñuy yëngu ci wàllu mbéyum dugub noppi nañu ndexaaruñu lenn lu dul tokk ndox laal suuf ngir kon ñu daal di jiw gannaaw nag kilifay sayet bi fi doon amal ab tukki ñi bokk ci développement rural bu Matam kat gis nañ ni ngëneel mu ñeel phosphate granulé yi nga xam ne fii ci diwaanu Matam lañ koy defaree ñu jagleel ko baykat yi njiitalu développement rural bu diwaanu Matam kon am yaakaar bu rëy lool ne mu ngay suxandikoo ci prévision météorologique yi annoncé ndox mu taw bu bëri te barkeel Youssouf Guèye mooy directeur développement rural fii ci Matam. météo seen prévision mooy pour taw yi day doon année normale à tendance excédentaire maintenant si mbirum semence bi mu nekk nii gouvernement bi commencé na mettre ay semences subventionnées au niveau de la région de Matam a wàññiwaat gouvernement bi comme dafa atteindre sécurité alimentaire dundal waa Matam waa Sénégal et puis penser à l'exportation il ne nu ay motoculteurs nu ay fausseuses andil nu ay polisseurs a riz fi mu ne ni ñun ci gouvernement bi dañuy distribuer phosphate de Matam yi producteurs yi INP Institut national de pédologie am na phosphate bu ñu jot bu bari te fi mu ne nii commencé nañ ko distribuer producteurs yi pour baykat yi nekk ci diwaanu Matam gannaaw bi ñuy noppee ci waajtaayu campagne yu nawet gi ñu ngi dundee yaakaar bu rëy lool waaye leader paysan yi ñu ngi saxuwaat ci kilifa yi te sa Sénégal ngir mu yabal matériel agricole bi des bi ñu yaakaar ni moo gën am solo ngir ñu mun leen yombal campagne nawet gi ñu ne yaakaar bu rëy lañ ci teg mu nekkoon seen naataango Ali Bandel ñaa fu ci doon Matam pour RFM. rajo Futur Média xibaaru guddi gi juróom-ñeent waxtu fegg fukki minutes ak kumpa tàggoog nag yéen njiital CESTI la woon di Eugénie Rokhaya Aw joxe xalaatam ci taskatu xabaar rek nañu taxawee bésub 23 juin ci manifeste yi fa doon am soxna si jàpp ne taskatu xabaar yi la leen waroon wàcc ñu ko def nañu seenub liggéey yamu ca ne sàkku na ci patron de presse yi di njiital kër yi tas xibaar yi ñu bàyyi xel bu baax a baax correspondant yi nga xam ne ñoo nga ca diwaanu Casamance di fa euh, liggéeyal seeni organe de presse euh, Eugénie Rokhaya Aw doon teewem ñu ngi ko jëmle woon ci information bu sensible euh, aju it euh, ci wàllu yoon nan la ci taskatu xabaar bi war a taxawee rawatina ca barab boobe Bakary Konté séminaire bu Amnesty International doon amal fii si diwaan Ziguinchor madame Eugénie Aw nekk ex directrice si doon na animé benn sous-thème information sensible judiciaire si milieu boo xamante ne région bu conflit la maanaam région bu am xeex naka la journaliste di joxe information bu sensible wàllum yoon tamit naka la ko war a traité loolu tax na bu muy dellu si si événement 23 juin yi moom ci xalaatam mu ne journaliste yi dañuy joxoon information te waroon nañ ko joxe mu ne nag loolu seen la dem sax ba mu ne ñoom waruñu yem ci sax dañu nar a gën a dugg di xool sénégalais métti métti yoo xam ne ñu ngi koy dund ñu daal koy joxe bés bu nekk si wàllum éducation si wàllum santé wante ba si wàllum yoon ak yeneen yeneen. Euh, maintenant voilà ce que je dis aussi c'est que là on parle du 23 juin mais on aurait aimé que euh, de manière plus euh, périodique de manière plus récurrente. dellu si ne tamit daal di ñaan rédaction centrale yi mu ne ñoom journaliste yi ñuy liggéey si Casamance dafa métti loolu mu ne loolu tax na ba zone conflit yoo xam ne journaliste yi ñu ngi fay nekk moom daal lu muy ñaan rédaction centrale yi ñi daal di jàppale correspondant de presse yooyu ndax seen liggéey lu métti la. et que j'ai beaucoup d'admiration pour des journalistes qui travaillent quand même dans des conditions presse je sais que c'est loin des yeux loin du cœur. journaliste yoo xamante ne ñu ngi fii si diwaanu Casamance jafe-jafe yoo xamante ñu ngi koy dundee menaces yi ñu leen di toppee ak tamit danger yoo xam ne bés bu ne ñu ngi koy dund ñoom dellu si nañ si si conférence boobule Bakary Konté rajo Futur Média. Bakary Konté manifesté 23 juin googee euh, convergence libérale ñoom jàpp ne mbir la moom ay wëyoo ko doon def euh, Samba Diaw euh, mi nga xamante ne mooy coordonnateur kuréel googee jàpp ne tay gone yu ko doon def ku jege ñoo nekkoon ci seen ginnaaw dañ leen xamba ko ruux tey jii la doon janok taskatu xabaar yi yàllu Seynou yëngu-yëngal yu amoon ñaari fukki fan ak ñett ak ñaari fukki fan ak juróom ci weeri juin bi ñuy génn loolu nag lu dul kenn ku ko soxee di opposition bi bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur convergence libérale Samba Diaw ne ñoom kat ñooy responsable te ñoom ñoo manipuler ndaw yi. kon kay nañ nangu lépp li fa am te lépp fa am ñoo ko wund ñoo ko sooxe lakk ga ñoo wax gone yi ñu lakk lakk yàq kër jàmbur yi ñoo wax ñu dem lakk kër jàmbur yi kër gu nekk ñu ne diw fële la dëkk dama lakk ko euh, mairie baa nga fële dama lakk ko. Samba jaw gis ne opposition moom dafa amul benn programme ngir loo xam ne daal mën nañ ko méngale wala mën a wut lu Abdoulaye Wade di proposé ma tax muy woo nit ñi ci ab violence te tax di continuer di def pression ci conseil constitutionnel. te yoo tàngal dëkk bu mu bu mu euh, conseil constitutionnel conseil constitutionnel mu nangu ne Ablaye Wade dana bokk suñu mbër yi jongante élection yi di ñëw loolu c'est déloyal. loolu moom liggéey bu mudul antu la ndax kat Samba Diaw ak structure am nee nañu ñoom ñi di xam ne ñooy jàppale candidature Abdoulaye Wade ci élection présidentielle 2012 daañu taxaw temm ngir jàkkaarloo ak ñoom. loolu yëpp nag ngir aar Sénégal mu taal di si teg. ci jamono joo jooj diwaanu Fatick ñooy jàppal tànk sa Seck ñoom nee nañu candidature Abdoulaye wadd googee mu fi jibal na ko tegaat fi suuf ñu fas yéene def seen kéemtalaay kattan ba Abdoulaye Wade waxi candidature 2012 mu mu bañ cee soreeti leneen lu ñu bëgg moo di Karim Wade doomi Abdoulaye Wade ñu jëlee ko ci euh, gouvernement bu Sénégal nga kuréel googu it sàkku daal chantier di liggéey yi nga xam ne door nañu ko ci diwaanu euh, Fatick. ñu yeggale ko kii di Matar euh, Diatara moo yore seen kàddu ñu déglu ko ci micro Youssouf Bodian. dafay nekk kuréel goo xam ne dafa facilité dajale képp koo xam ne citoyen nga dëkk Fatick képp koo xamante ne nii signé nga li nga xamante ne nii moo di pétition bi nga xam ne bëgg nañ koo def ngir taxawal front boobu da nga fa teew ndax loolu bokk na ci yoon wi nga xam ne fa lañu bëgg a jaar ba def fi front régional maanaam dinañ bind ay këyit yoo xam ne dinañ ko jox képp koo xamante ni jàpp nañu ne citoyen sénégalais ñu ne la ñun bëggatuñu Ablaye Wade toog fa te bëggatuñu Ablaye Wade def candidature am 2012 bëggatuñu Karim nekk fi ndax jox nañ ko alal réew mi te amul lenn loo xam ne gis nañ ko ci problème yi nga xam ne Senelec ñu ngi koy dund ba problème yi nga xamante ne nii jëm na ci wàllu courant kon moom bëggatuñu ñu jox ko benn pouvoir boo xam ne ci gouvernement bi la nekk fas yéene nañu am li nga xam ne moo di délégation spéciale yi maanaam gox yi ak goxaat yi nga xamante ni population yi tànnoon na ay nit teg leen fa ko foqal yi loolu luy war a donc ku képp koo xamante ne nangu ci ñoom da ngay signé loolu su ko defee nag bu ñëwee ba ca kanam ñu taxawal benn ndaje moo xam ndaje bu mag lay doon fas yéene def benn marche wane ne Fatick kat ñii la takkoo kon jàpp nañ ni buñ dajee ci loo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo ko war a xeexandoo kon am nañ kuréel goo xam ne dañ ci mën a waxtaan ci loolu li ñu bëgg mooy bu ñu dajee waxtaan waxtaanee problème boo xamante ni problème Fatick la. hôpital yi chantier de Fatick ak lépp te lépp loo xam ne war na ak takku war na taxaw war na ab xeex boo xam ne war nañ ko ci def ngir chantier de Fatick yi moom ñu yeggali ko dañoo bëggoon daal ci xeex bi nga xam ne Sénégal fas nañ ko xeex ñun région de Fatick duñ ci des gannaaw. Matar Diatara yore kaddu ko ñee jàppal tànk Idrissa Seck ca diwaanu Fatick juróom ñeenti waxtu feg fukki minute ak